rek laa la yëg graawul amul problème Pape Cheikh gaaw ñëwaan mbugal leen dégg parce que say mbugal la ñu nam Pape Cheikh si lu ma neex rek lay dox waaw la rakkam ah, yow tamit la may mun a bu ñu fontoo <laughs> moom du xaar ma ko koy laaj waaw moo tax léegi man maa jum may mun a gay bambaloo nañ wax ci ci ci budget état bi voilà euh, euh, Bijou on va parler du budget budget nag boo ko déggee rek mooy prévision de recettes et de dépenses te budget Bijou chaque fois dafay répondre li nga xamante ni moom mooy principe annualité cest c'est-à-dire c'est toujours défini pour une année mais mm-hmm. balaa ñu si euh, sori euh, du ñu def lu dul déglu benn expert en la matière mooy xamante ni mooy euh, président ONG 3G di Moundiaye Cissé mu indil ñu ay éclaircissement si constitution budget et éventuellement projet yi nga xam ni ñoo ko lal mooy lu nguur gi xalaat ne ci at bi dina ko am ci alal alal jooju nan la koy jëfandikoo ci at bi mu nekk ci benn document bu benn unique ñu koy ooyee budget donc booy xool euh, xaalis boobu la ñuy ooyee budget ak dépense maanaam prévision recette ak prévision dépense si tënk moom la ñuy ooyee budget xam nga état bu Sénégal dafa am lu ñuy wax ministère de l' économie et des finances ministère de l' et des finances dafa am ay bànqaas yu ci nekk bànqaas boo xamante ne ñu ngi ko loger par exemple ci lu ñuy wax ministère délégué chargé du budget moom lu ñuy woowee direction du budget parce que état bu Sénégal quand même état bu organisé la ñooñu ñooy nas d'abord budget bi waxtaan ci yeneen ministères yi ba jàpp ne lii d'abord dina nekk ci lu ñuy am ci koom-koom ci alal buy dugg ci réew mi jàpp ak ministères yooyu xam seeni soxla buñ ko tëggee ñoom ba pare si lañ koy jël mu tudd avant projet ñu yóbbu ko ci conseil des ministres ñu ko ministère des finances yóbboo ci conseil des ministres conseil des ministres xool ko ba d'accord ci maanaam ministres yëpp ànd ci ñu soog ko jël si boobaa day nekk avant projet de loi yóbbu ko assemblée nationale bu ñu ko yóbboo assemblée nationale am na lu leen gis yéen mu ñu koy plénière ñuy waxtaan avant boobu dafa am lu ñuy wax commission des finances moom mooy nekk di ko gëstu avant projet boobu ba ñu toll ci d'accord ci maanaam alal ji fii lay jógee fii lañ koy def assemblée dem plénière voté ko bu ko voté fi lay nekk loi des finance fi lay nekk réellement budget bu ñu ko voté foofu ba pare assemblée nationale si lay ko assemblée nationale di delloo nag nguur gi président de la République def lu ñuy wax promulgation mu nekk budget maanaam bu boobaa amul lenn lu lu ñu ci war a euh, dépenser wala lu ñu fi war a ut alal te assemblée nationale joxe waatu ci ndigalam bu ñu ko promulguer mun nañ nag dem ba ci diggu année bi. mu am ay recettes yu bees comme par exemple ay euh, dara feeñ ci loo xam ne mën na indi alal ci euh, askan wi ci nguur gi mu recette mu ne recette bu bees muy impôt bu bees wala taxe bu bees wala alal ju bees bu war a dugg loolu du tax ñu jël ko def ko ci budget bi dañ koy jël xool alal jooju fu ñu kon bëgg a def comme dépense encore tëggaat budget bi mu tudd loi de finances projet de loi de finance rectificative donc booy xool tam budget yi dafa am lu ñuy wax les recettes fiscales maanaam alal jooju fu muy jógee mun naa ne ci askan wi lay jógee te si ñoom la war a dellu moo tax ñu bëri di wax naan citoyen bi il est l'alpha et l'oméga du budget parce que alal bi ci moom lay jógee ci moom lay dellu moo tax mu am euh, am ci droit saytu ko mooy tax li ñuy woowee contrôle sitoyen parce que askan bu dul fay impôt bu dul fay tax budget mënul am ci réew bu ñuy wax recette fiscale yi boo xoolee booy ko sa salaire dina am lu luñ ciy tompat muy eh, impôt sur le revenu dugal ko ci nguur gi boo xoolee ñiy jaay di def commerce am na lu ñu oyee TVA en général 18 pour cent la loolu mooy taxe sur la valeur ajoutée booy jaay bu nekk danga ciy teg loo xam ne si njëg li da nga koy delloo état yooyu la ñuy oyee recette fiscale loolu bokk na ci fi alal bi di jógee am na lu ñuy oyee les recettes non fiscales yi nga xamante ne ay bien la yu nguur gi di jaay comme par exemple mu jaay licence licence téléphonie wala yu mel noonu ak yeneen bien ak service yoo xam ne nguur gi da koy def mu jural ko alal maintenant à côté des dépenses de fonctionnement dañu am lu ñuy wax dépense d' investissement mooy yi nga xamante ne ñëpp ko bokk parce que dépense yi ma lay wax noonu mooy fay salaire yeex yooyu ay nit lañ koy fay ak ñoom seen mais dépense d' yi mooy lu ñëpp di bokk mooy tabax tali par exemple mooy tabax hôpitaux tabax ay euh, autoraay tabax tabax ay raay ñoom seen dépense d'investissement yooyu mooy fa lay dépense yi dugg de sorte que boo xoolee toujours dañ ko war a def mu am équilibre maanaam alal ji ñu am du dépasser li nga xam ne moom lañ nar a dépenser mais au-delà de cela démocratie dafa dox ba nga xamante ne contrôle bi yamatul rek ci assemblée nationale dafa am lu ñuy ooy léegi contrôle citoyen maanaam kii moo ñu jox suñu constitution moo jox citoyen bu nekk droit mu mën a laaj ay compte ci ni ñuy yoree alalu réew mi même bu dul budget bi rek. même voilà c'était Moundiaye Cissé bu ONG 3 de mu ñuy waxtaanal ci. Euh, euh, budget bu bu état du Sénégal je pense que c'est très intéressant ndaxte nit ku ci nekk tu te la question à savoir état fan lay jëlee xaalis li muy jël fan la koy dugal financement yi naka lay demee donc loolu yëpp day intéresser sénégalais yi ñu waxtaan ci ñoom moom expliqué na ko je pense que ça a été très clair juste pour euh, am résumé bu ndaw donc moom lu mu wax mooy ni que ministre yi nga xamante ni dañu nekk euh, ci gouvernement bi yëpp ku ci nekk da ngay euh, da dañuy concerté wu ak ministère des finances mhm. ñu woote ay commission de finance yoo xamante ni ku si ne da ngay ñëw ak sa projet de budget mhm. nga ni man lii ak lii ak lii ak lii laa soxla donc bu ñu si toogee ñu waxtaan ko ba ñoom ñëpp ñu déggoo ci ñu jël li nga xamante ni moom mooy euh, li ñu tënk daat ko yóbbu assemblée nationale bu boobaa dafay nekk projet de loi de finances donc buñ ko yóbboo assemblée nationale député yi nga xamante ni ñoo fa toogal askan bi ku ci nekk boo nee lii laa soxla ñu saytu ko xool la pourquoi fan lay dugg ak yooyu léegi nag mun nañ ko yéegal comme mun nañ ko wàccee. léegi nag euh, chaque fois ministère benn moom mooy dem ak euh, ki nga xamante ni mooy ministre de tutelle am mhm. donc suñu demee ba nga xamante ni ministère bi li mu euh, indi woon d'accord nañ ci wala ñu wàññi ko ak yooyu nga xam ne d'accord nañ dañ bu ñu génnee li nga xam ne moom lañu décidé moom la ñuy yóbbuwaat encore président promulgue ko su ko defee si lay nekk budget bi ñu xam ne moom lañu défini mhm. loolu nag mooy nekk loi de finance léegi nag bu fekkee ni que dañu dem ba ci digg année bi budget boobu mu war a am ay aménagement yu ci am par exemple mu am benn affaire bu am wala mu am catastrophe wala mu am daal ay ressources supplémentaires yoo xamante ne état bi da ko am mhm. dañuy def projet de loi Euh, de finances rectificative bu boobaa dañuy demaat encore assemblée parce que en matière de budget xam nga assemblée nationale député yi ñoom ñoo fi toogal li nga xamante ni moom mooy sénégalais. Mhm. donc xaalis ñu ci def dara à chaque fois dañuy retourner à l'assemblée député yi waxtaan ci ñu nga am par rapport à la décision ñu doog ko promulguer. Mhm. maintenant boobu noonu su ko defee suñu valider li nga xamante ni mooy projet de loi rectificative bi ñu mën a exécuter budget bi juste rappeler que euh, budget dañ koy définir chaque fois. N moins 1 c'est-à-dire budget 2017 à partir de janvier 2016 dañ koy commencé établir ba ci mi année bi ñu xam ñu xam décidé nañ 2017 luy xew voilà mm-hmm. instant bi suñuy waxaat début 2017 li nga xamante ni mooy budget 2018 la ñuy nekk di waxtaanee mm-hmm. en tout cas c'est c'est très intéressant mm-hmm. man li ma bëgg xam mooy yenn saa yi da ngay dem yenn quartier yi hmm? yenn secteur yi euh, doo gis évolution du ci tali bi du ci koñ yi du ci potu lampe yi et pourtant mairie mairie mairie zone boobu noonu. je am na budget. bien sûr. léegi yow yow yow yow euh, en tant que en tant que sénégalais nga dëkk ci zone boobu. ban ban droit nga am. Euh, pour mën a dénoncer loolu noonu. voilà déjà moom mu ngi xam nga tam faut faire la part am na une partie du budget boo xamante euh, état bi moo koy joxe mais am na beneen partie boo xam mooy gouvernement mais fotu maire commune boobu wala localité boobu la est-ce na budget normalement est-ce yi nga xamante moom la am appliqué na ko si nga xamante moom la ko waroon dugal maintenant yow en tant que citoyen sénégalais euh, mu ngi may moom mooy fonctionnement wu budget bi yow bu nga porter plainte bu fekkee gis nga loo xam ne daf la nakari comment je porte plainte da ngay dem nga dem si li mooy assemblée nationale soit nga jël attache ak benn député boo xam bu demee si li nga xam ne moo jëm si askan bi moom mu wax mu wax ko dénoncer au delà moom moo waroon exécuter budget bi porter plainte bu boobaa dañ lay woo mu ñëw yow nga wax mais ñoom ay organisation yu mel ni euh, organisation de société civile civile bi léegi ñoom am na ay forum yu ñuy def yoo xamante ni dañuy dugg ci site euh, internet ministère yi xool budget bi ni ñu ko établir ak li ñu wax ni moom la ñuy def ñoom ils vont sur le terrain avec des experts pour évaluer li nga xamante ni moom lañu wax def nañ ko ci 2016 bi est-ce que ça a été réellement fait expert bi daal di ni par exemple on avait dit que. Euh, dinañ benn hôpital est que li ñu fa dugal. bat na milliards. est que équipement yi ñuy jël. c' est les équipements yi nga xam ne moom lañ dugaloon ci projet de budget bi parce que il faut savoir que maintenant sénégalais dañu exigeant trop trop ci seen xaalis parce que léegi Euh, du côté de la fiscalité kenn mayeetul kenn dara. parce que léegi bu marché bu ndaw même bu fekkee 500000 francs nga war ko liggéey ak état on te demande un quitus fiscal. bi mhm. montré ni que yow. tu es en règle avec la fiscalité <laughs> donc. Mm. autant ñoom la ñu yi pour jël xaalisu nit ñi wala pour amasser li nga xamante ni mooy fis enfin recette fiscale yi autant aussi sénégalais bi dafa war a am droit de regard sur l' parce que ah, droit de regard yi ngay wax aussi faut faire très attention ndax souvent am na yoo xamante ne c'est vrai mairie bi moo ko war a defar mais am na yoo xam ne c'est des projets étatiques donc du coup bu fekkente ne bu ne bu fekkente ne dañu jël yëpp rek yoo xam ne doxul ci quartier bi ñu ne mairie bi na ko dem defar day metti na parfois seen budget du ci du ñu am budget pour defar ko donc loolu moom c'est clair déggoo mandat bu mujj ak mandat bi di ñëw à la à la à la limite tu te dis c'est c'est discours bi ñu lay tenir parce que dañuy def seen caravane si koñ yëpp euh, discours bi promesses non tenues euh, pendant des promesses de campagne moom faut voir da ngay gis après trois trois trois générations je veux dire trois mandats euh, maire eh maire dem ñëw amul benn changement et que l'argent du contribuable aussi la suñu participation la mm-hmm. donc koñ bu ñi fa dëkk dañuy fay impôt dañuy ne ci marché de mais doo doo gis benn changement. et que les gens sont là les bras croisés. non non croisé wuñ les bras xam nga ku nekk fi nga dëkk nga mun a waxee man parcelle unité 3 nit yi tooguñu croisé les bras. waxal waagu ñaay kaasal na ku nekk as quartier donc foofu nit yi tooguñu croisé les bras defar nañ ay association yoo xamante ne c'est pour lutter contre quartier bi ni mu mel tali bi baaxul lampe da ngay lëndamtu booy dox guddi gi. donc euh, bu bu ba pare foos yi foos yi moom bu tawee mooy moom euh, nit xale sax mun nañ ci fay donc ñoom créé nañ association ñi ngi dem gis mairie bi ñi ngi kaas ñi ngi def ay manifestations tout le temps mais avancement doo ko gis clairement donc euh, xanaa ñun mun jottali rek moo de quartier ñu ngi euh, fi télé bee ngi fi ku nekk jógal sa bopp ñu wax ci peut-être mu am lu ci changé mais mun nañu bàyyi la nga conclure voilà peut-être moo am comme ni ma koy waxee sénégalais am culture jël li ñu moom mhm. combat du ñu mëne ay combat pour voilà dañu laxiste il faut il faut rappeler aux Sénégalais que durant les plénières pour, voter budget une durant les plénières aussi bi c'est bien de dire aux Sénégalais bu loolu de bu ñuy voter budget bi wala ministère bu nekk ñëw taxaw bu la neexee mën nga dem seetaan yi xool luñ fay luñ fay waxtaanee c'est important parce que nit ñi dañuy yaakaar ne que amuñu droit dugg fa c'est vrai am nañ droit dem xool voilà donc c'est bien voilà français di ko jàngale à l'école primaire pour ku ci nekk xam sa droit la proposer pour prochain droit nga dimbali ñu ngir yàlla nga dem ci mairie yi laaj leen seen budget ak ñoom lan lañ ci def ci liñ leen jox lan la lan mooy dem ci quartier yi ci ci commune bi kii bi ñu nekk ak lan la état bi war a def ak ñoom lan lañu war a def ak lañu def fan lañ toll soxal na ko trop après boo leen génnee ngeen continuer discussion bi may mun a pour conclure lay dem juste bijou euh, pour euh, tënk li nga xamante ni moom la ñuy wax mhm. rappeler que Sénégal budget mu ngi am ay évolution mu ngi am évolution bu baax pourquoi parce que nit yi dañuy fay seen impôt euh, conteneurs yeeg li lépp li nga xamante ni day dugg ci Sénégal nit yaa ngi fay taxi ñu 19 milliards de budget. Temps Senghor, en 1981, temps on, est passé à milliards de budget. Mm. En 2001, bi Abdoulaye Wade on a été jusqu'à milliards de budget. Et mmh. effectivement instant yi bi Macky Sall on est à plus de milliards de budget. donc il faudrait comme ñoom ñu ngi avancer il faudrait vraiment que mu ñëwaat. comme ni ñu conclure conclure merci beaucoup. voilà douane Sénégal rek. donc li mu dugal ci donc ñu lay remercier bu baax mais na ci budget étatique bi nga xam moom nga indi fii je pense que soxal na population bi seetaan yëpp dañuy continuer yeewu leen mais cette fois.